di ñaan yàlla nag yàlla yokk xewal bi ci biir xewal gi rek man nak ah, ma ngi tuddu Aïssata Niang nek superviseur R3 bo déggé R3 nak mo ñettel bankasu LPT bi ñu kay wax engagement parental et communautaire hmm. waaw engagement parental ak communautaire yeen yag ngeen euh, liggéey ci école yi euh, di jàppale parents di len accompagner ci ni ñuy topé sen jang xalé yi tey xam nañ ne xale yi ak euh, contexte bi ñu nekk muy coronavirus ñu ngi ci biir euh, ci biir kër yi est-ce que mën nga ñu defal situation wu euh, lan la R3 def ak parents yi. Mhm, jërëjëf sëñ Gassama gis nga lii moom dafa fekkoon ne maanaam waa R3 am lu bëri loo xamante ni ñun waajaloon nañ ko ndax boo xoolee résultat 3 presque trois ans mu ngi nii ñu ngi ci biir école yi léegi nag amoon na temps bi nga xamante ni dañ doon jël benn relais. mu doon nekk ci ba ci juróom-ñaari dëkk ba ci juróom-ñetti dëkk. waaye yàlla dafa dogal janvier bii passé. ñu commencé nag ñu ne fi mu nekk nag jot na nag dëkk bu ci nekk amal boppam relais boppam. Hmm. loolu nag ba ko lancé nag yàlla dogal nag dëkk bu ci nekk nag tànnoon na relais boo xamante ni ci biir communauté am la ko tànnee. Hmm. loolu nekk na loo xamante ni nag gën ñoo gën a jàppale sax. Hmm. ci naka la ñuy def ba aaru ci jàngoro.

R3 moom dafa bëgg a fexe rek naka la ñuy gën a jegee parent bi naka la ñuy gën jegee communauté bi ba ba mu am jeextal si njàngum gone yi hmm. léegi nag loolu nag moo waroon nag dëkk bu ci nekk nag ñu jëloon fa benn benn relais hmm. léegi nag ginnaaw bu ñu jëlee dëkk bu nekk benn relais jëluñu relais bi rek teg waaye dañoo jël relais bi ak comité de gestion bi ñu boole leen ñu formé leen ginnaaw bu ñu leen formé nag si lañ leen delloo ñu dem ci seen communauté war a liggéey ak seen communauté hmm. fi ñu dooree ban tey liggéeyu CG kii bi euh, kii bi relais bi hmm. maanaam bi ñu njëkkee dem dañ leen wax ne da ngeen di dem seen CG yi dem seen école yi hmm. bu ko defee ngeen fexe ngeen am liste élèves yi hmm. ngeen sukkandiku ci liste élèves yi ngi ngeen am liste parents d'élèves yi ak contact parents d'élèves yi maanaam seen numéro seen numéro téléphone bañ ko defee nag loolu noonu tamit ba situation bi présenté wu tamit daf ñoo yombal maanaam dafa wéyale suñu liggéey bi ci ak parents d'élèves yi léegi relais yi ñu ngi ci village bi dëkk ci dëkk ba am nañ numéro parents yi bien que euh, restez chez vous lañ wax kon ñoom nakal ban approche lañ mën a def ba continuer seen liggéey. waaye xam nga relais yi relais communauté bi la maanaam relais bi mu ngi ci biir dëkkam. Hmm. waaye tamit nag ban tey rek dafa amoon loo xamante ne tamit. waa R3 waa LPT defoon nañ ko bis yi nga xamante ne dañ koy dex jox ko jàngalekat LPT bi jox ko directeur bi jox ko président CGE bi nga xamante ne dafa bokk ci 53 école euh, r yi hmm. relais bi tamit dañ ko joxoon pisu téléphone pisu téléphone bu boobu noonu nag boobu noonu jàngalekat yi xam ne ni muy doxee weer bu dee bu ci nekk dafa am crédit boo xamante ni dañ leen koy dugalal crédit boobu noonu nag bu ñu la ko dugalee ne nag li tax crédit bi jóg mooy mu am njeexital ci gone gi hmm. waaye yàlla dogal nag problème bi ñëw na nag hmm. day gën a yomb ci relais bi bu ko defee crédit boobu noonu bu ko jotee hmm. mu mën a woo way juru ndongo yi mu leen sensibiliser bu ko defee xale yi nekk ci biir kër ga des ci biir kër ga relais bi du jokkoo ak wayjur bi wayjur bi di continuer di toog ak doomam hmm. di ak ak encadré doomam ci biir kër gi euh, euh, encadrement boobu sax euh, R3 am na wama LTT am na lu mu ci jot a def mooy téere yi mu joxe moom na moon nañ téere classe waaye tamit am nañ téere kër téere kër bi mu war a lëkkale élève bi ak parent bi hmm. yow ban stratégie nga leen di digal fi mu ne nii pour ñu continuer di toog kër ga di jàng waaw xam nga waaw xam nga jamono jii nii liñ defar pour hmm. parents yi sax dafa bëri yemul ci téere kër bi defar nañ kër bi parent bi war a sukkandiku ci téere kër bi ngir jàppale doomam waaye am na beneen leneen loo xam outil de communication boo xamante ni defaloon nañ ko muy outil école maison maanaam parent bu ci nekk day sukkandiku ci outil boobu noonu pour xam doomam fan la am jafe ci wàllu liifantu hmm. léegi boo xamee nag doomam fu mu ci wàllu liifantu nag téere kër boobu boobu noonu nag faaw nag moom muy dem ci ndaje yi nga xamante ni relais bi da ko doon woote hmm. ci foofu noonu ci ndaje yooyu noonu nag la ñuy wanee parent d'élève bu ci nekk naka lay sukkandikoo ci téere ba ba mun a jàppale doomam hmm. waaye sëgam nag jamono ji ñu toll ndaje yooyu noonu amul léegi relais bi ci boppam dafa bokk ci liñ ko sas hmm. muy woo parents d'élèves bi di leen wa di leen expliquer naka la ñuy jëfandikoo téere kër bi hmm. bu nekkee ne tamit uti école maison bi maanaam nan nattukaay bi nga xamante ni dafay lëkkale école ba ak kër gi bu nekkee ne mënga nga ak parent ba actuellement bu ko woowee bu waxee xale bi fan la toll ci wàllu liifantu bi dina war a mën a gindi bi ngir parent bi di sukkandiku ci téere kër bi di jàppale doomam ci wàllu liifantoom euh, ginnaaw loolu Aïssatou ba tey euh, LPT ci lim doon liggéey avant lii di am depuis 2012 yéen a ngi 2018 vacances 2018 yéen a ngi woon ci ay camp de vacances ci biir camp de vacances yooyu doon nañ ci def ay sensibilisation euh, lu mel ni lavage des mains mu mel ni lavage des mains tey dafa dafa gën a xew lan nga leen ci dolli ñoo ñoom parents yi ak ñi nga xam ne ñu ngi ci biir kër yi. waaw ndaxte 2018 vacances 2018 LPT dafa expérimenté woon ay camp de vacances bi ñu ko defé nag mu ngi ko defone ci département Nioro bi ñi ngi ciblé woon sept écoles 7 écoles yoy noonu zone Kër Madiabel am na ci Firgi ci la bokone ak zone Porokhane bi amna ci juroom ñaari école daal ci la ñu nekkoon ci biir juroom ñaari école yi dajale wuñu won ay xalé yi rek pour di fo agré waye dañu wax né ci cadre fo agré xalé bi mun na see sukkandiku ba mëna a liifantu loolu moo ñu organiser won camp de vacances yi vacances 2000 2018 légui na ci biir camp de vacances yi sëgam day am ay fo am ay jeux yoo xamante ni dañ koy def ak yooyu noonu ñu ngi doon jàngal xale yi naka la ñuy raxasoo hmm. ci biir naka la ñuy raxasoo boo xoolee sama raxasukaay bee ne hmm. man ci camp de vacances 2018 bi hmm. si laa ko si laa amoon modèle bi ma conservé ko ba léegi nii nga xamante ni nee nañ ku nekk nga defar sa kër fi laa jël ko doon defee ci camp de vacances yi ma defaat ko ci waaye nag gis nga raxasu bi ni maanaam yemutoon ci camp de yi maanaam euh, ci camp de yi dañ doon jàngal xale yi ñuy raxasu ak yooyu noonu waaye tamit nag relais yi science pratique bu muy def bu ci nekk hmm. maanaam raxas loxo dafa bokkoon ci bonne pratique yi hmm. maanaam yow boo ñëwee sa xale bu jógee école ñëpp si kër gi li ngay njëkk a def balaa moo def dara danga ko war a wax tegal sa saak bi nga ñëw nga raxas sa loxo yi ba ba set loolu noonu nekkoon na loo xamante ni képp koo xamante ni way jure R3 nga rek hmm. nga doon fekkee science pratique yi rek yow nañ la ndax ngay def ba raxas sa loxo doom ndax ngay jàppale sa doom mu raxas ay loxoom ba mu set kon léegi nii kon day yomb ñoom ci seen biir kër yi bu ñu desee seen doom yi ci biir kër gi tamit ak jàngoro ji nga xamante ni ñëw na ñëw ni tegu ci sun kaw tamit day yomb tamit ñoom ñi gën a mën seen doom bu baax a baax ci raxas ci raxas loxo euh, yaa ngi wax ci science pratique yi est-ce si lu a yaatu ci science pratique ne fi mu nii ñu toll nii tembe parents yi dinañ ko soxla ci biir kër yi waaw xam nga science pratique yi nekk na ay activités yoo xamante ni yu yomb la te day gën a dëgëral liifantu gane gi hmm. lu yomb la amoon na jamono joo xamante ni nag relais yi ci boppam dañ leen doon euh, relais yi ci boppam dañ doon woote ay causerie ci biir causerie yooyu noonu si lañ doon woon parents yi naka lañuy ñuy nag yan activité la ñuy def ak seen doom wax naa la sanq même naka lañuy ñuy jëfandikoo téere kër bi sax dafa bokk ci activité yi nga xamante ni dañ ko doon def ak ak parent bi benn beneen bi ci tegu mooy yow bu nekkee ne yow yow uti école maison bi ñëw na maanaam outil bi nga xamante ni moom mooy lay permettre nga xam sa xale bi fan la am jafe-jafe ci wàllu liifantoom tamit hmm. am na activité yoo xamante ni da nga sukkandiku tamit ngir fajtal lépp loo xamante ni xale bi am na ko jafe-jafe ci wàllu liifantu hmm. su ma la joxee misaal bu njëkk hmm. dafa am benn activité bi ñuy wax ne powum araf lañ koy wax ah. jeu des lettres jeu des lettres boobu noonu waajur bu ci nekk war naa mën a kumpawu sa doom ndax xool ndax sa doom araf yëpp mun na ko bind ak ban araf la ci am jafe-jafe nag ko la koy bindee loolu nag pour ñu xam ko nag faaw ñu jege relais yi jamono jii nag causerie munta am ndaxte dañu ndaje yéen dañu tere yéen yéen rassemblement yi waaye nag relais yi ak communauté bi nañ xam ne LPT dafa am loo xamante ni joxe na ko mu nekk moyen de communication boo xamante ni bu am solo la muy téléphone bi nga xamante ni chaque fin du ciy dugal crédit te crédit boobu boobu noonu nag may lancé waat appel crédit bu boobu noonu li tax mu jóg ngir liifantu gone gi moom moo tax mu jóg relais bi war na mën a woo CG war na mën a woo parent bi pour parent bi eh, jàppale doomam ci wàllu liifantu maître tamit enseignant yi tamit dama leen di ñaaxaat ñoom tamit léeg-léeg sagab ñoom bu ñu woowee relais bi maanaam euh, duñ fay bu ñu woowee président CG bi duñ fay kon war nañu mën a planifier chaque semaine appel yu nga xamante ni dañ koy def di woo seen euh, relais di woo seen ya wala sax di woo jàngalekat bi nga xamante ni moom moo doon yor classe u LPT bi di leen gën a ñaax ñiy gën di ñi gën di jokkoo di weccoo ay xalaat naka la ñuy def ba xale bi bu desee si biir kër gi wara mun a liifantu ak ak yaayam ci biir kër gi mm-hmm. ban tey boo ñëwee tamit ci science pratique yi ban tey te nga mën kaa euh, relais bi mën kaa mun kaa def parent bi à distance li ci mel ni euh, la ronde des mots. Hmm. ronde waaw la rondu de moom hmm. ndax ci jamono jii nii waajur boo ci gis bu ci nekk bu xëyee bu demee marché bu ñibsee ndugg moom noonu bu ko tegee rek am na ci loo xamante ni war na cee war a mën a jàngal doomam. Hmm. kon ñiy gën a ñaaxaat relais yi rek lépp loo xamante ni séance pratique la mu nekk seen aide mémoire bi nañ koy xool di ko gëstu di woo parents d'élèves bi di ci waxtaan ak ñoom. di leen gindi naka la ñuy def ba war a mun a jàppale seen doom.

sama dom dang don jang lendi 8 heures nga don dugg wacc 1 heure dina fexé 8 heures bobu non bu jotté lan la sa basang nga génnee sa bagage nga occupé ko ah. mu seet lan la mëna def ah. mom kessé ah. sax mën nako def yow fekk yow amna ci leneen lo xamanteni yang koy japp nga koy pousser amna lo xamanteni dina ko wara mëna def bo démé nak yow ba def li nga def ba paré yow science pratique yi nga xamanteni dang ko don def relais bi dina ko don won lég lég lég mu lay wo téléphone di expliquer nak naka lañ koy défé séance pratique yoy non nga ñëw diko jëfé ak sa ak sa doom benen bi ci tegu tamit di ñaaxaat tamit CGE yi tamit ñi gëna a ñaaxaat seen communauté yi. Ah. te téléphone yaa fi. cartographie bi mu ngi fi te cartographie bi nekk na lo xamanteni lu am solo la ndaxte gis nga euh, daaw bi nga xamanteni dañuy def enquête kat bi. Ah. biñ démé ba soxla parents yi bu nekkone cartographie bi dafa nekkone sur place jafé jafé du am. Ah. fuñ tok à distance mën nga wo parents d'élève bi nga nga def ak mom séance de travail bi nga bëgg def ak mom waye actuellement nak cartographie boobu noonu mu ngi disponible dina yombal liggéey bi yëpp. kon euh, directeur bi war nañu war na mun a jàppale waa R3 bu baax a baax jàngalekat bi war na mën a jàppale waa r bu baax a baax CGE bi nag ñoom ñoom moom projet bi ñoom moom xaw ñu jàpp ci bu baax a baax ndax bu ëllëgee résultat yi nga xamante ni ñu ngi koy seenu ci CGE bi bu bu boobaa résultat yooyu noonu ñu mën ko am relais bi tamit warta toog rek relais bi tamit bu nekkee ne am na loo xamante ni jaaxal na ko am na superviseur yoo xamante ni ñu ngi fi ndaxte boo ñëwee ci département Nioro bi trois superviseur moo fi nekk man mii Aïssata ak euh, Woppa Diallo mu ngi dëkk Poraxa ak Amady Si trois superviseurs yooyu noonu ñoom ñoom ñu ngi fi hmm. te ñaari superviseur yooyu nag muy Woppa ak Amady mu nekk ñoo xamante ni disponible lañ hmm. kon képp koo xamante ni rek am nga euh, puce LPT boo leen woowee seen numéro LPT mën ngeen jokkoo ngeen waxtaan ci lu bëri rawatina nag sëgam relais bu ci nekk nag da am sa puce LPT waruloo xaar rek man superviseur bi woowaguma chaque deux jours war ngaa mën a woo sa sa superviseur bala nga woo sa directeur wala nga woo sa jàngalekat nga échanger ak moom nga ne ko man de def naa lii bu boo defee loolu noonu moom dina seet lan la lay pousser pour yow nga mën a def leneen loo xamante ni moom mooy gën a baax. beneen bi ci tegu tamit appel bi nga xamante ni tamit euh, ñu ngi koy lancé maanaam bu weer bi taxawee euh, activité yi nga xamante activité de supervision à distance hmm. yi ñu bëgg a def dañu bëgg bës bu nekk ñu woo ñaari kii ñaari ñaari relais yoo xamante ni dañuy liggéey ak ñoom à distance hmm. ndaxte relais boo ci euh, sa superviseur boo ci gis ñooro fii nii am na 18 école kon 18 écoles yooyu noonu chaque jour mën ngaa jël deux relais nga liggéey ak ñoom à distance lépp loo xamante ni am nañ ko jafe surtout nag ci séance pratique yi naka lañ ko mën a dérouler à distance ak parents d'élèves bi loolu noonu yëpp si la ñuy waajal pour jàppale ci euh, relais bi jàppale ci CGE bi ndax buñ dooraatee njàng mi eh, élève yi dañuy am niveau bu nga xamante ni eh, niveau bu baax lay nekk loolu daal nekk na loo xamante ni daal eh, fi ne nii ci loolu la ñu sóobu est-ce que euh, euh, am nga leneen loo xam ne doon nga ko suggéré waa projet bi ci kaw ñu réajuster ko pour par contexte bi ni ñu daan doxalee te ñu war ko soppi ngir ngir ngir ngir contexte bi ñu toll nii loo xam ne da koy proposé euh, kilifa yi ci kaw wala amoo. ndax am naa yaakaar ñun ne kilifa yi ci kaw hmm. lépp li nga xamante ni war na pour liggéey bi jaar yoon rek hmm. ñu ngi koy def hmm. ndax ñun semaine bu ci nekk chaque début de semaine bu ci nekk am na benn plan d'action boo xamante ni au niveau de Dakar lañ koy envoyé mu ñëw ci agent de liaison bi muy Oumou Kaltom Wade ñu jot ci chaque semaine te loolu noonu moom duñu ko envoyé yem ci waaye chaque jour day seet li nga xamante ni war nañ ko def sagam téléphone yi daf fay nekk te ku ci nekk mën nga woo sa morom te du am fay moom chaque jour li nga xamante ni programme nañ ko ci jour bii nii maanaam ci jour jeudi bii nii da ciy coordonné ak ak ñun noonu lañ koy liggéeyee. dem na sax ba chaque semaine am na benn conférence call boo xamante dañ koy def mag chaque mercredi conférence call moom yow. Euh, xam nga ko. mooy dañuy fexe képp koo xamante ni bokk nga ci dispositif bi dañ lay woo téléphone bu ko defee ci flotte bi ñu woo la ñu ci ñu def benn réunion bu ndaw boo xamante ni dinañ partagé loolu noonu chaque semaine dañ koy def xam nga bon loolu noonu nekk na loo xamante ni kon lu am solo la xëy na nag mën nañ xalaataal leneen loo xamante ni dina gën a mën a améliorer liggéey bi loolu tamit ñu koy def moo taxoon sànq ma ne la ne actuellement mois de mois de mai bii nii dañuy bëggoon chaque jour bu ci nekk nga choisir ma choisir ñaari relais yoo xam ni da ngay liggéey ak ñoom à distance ci séance pratique gin leen encadré bu baax a baax bu ko defee ñoom ñi sukkandiku ci ngir mën a jàppale wayjuru xale bi loolu moom bokk na ci lu nga xamante ni mm, man Woppa ak Amady ñu ngi ciy xalaat. léegi e, yeneen relais yi nga xam ne seen paiement yi doon na jafe-jafe naka ngeen fas yéene parce que fi ne nii rassemblement dañ ko bañ te nit ñi mën nañ déplacé u dem ci banque yi naka ngeen defee. waaw loolu loolu ban tey euh, waa F3 lijjanti lañ noonu lu noonu ba pare ndaxte semaine bii passé actuellement sax ñi ngi fay ban yi pareeguñ ci semaine bii passé naka la ñuy fay naka la ñuy si laay ñëw hmm. semaine bii passé hmm. ñi ngi fay pareeguñ hmm. ndaxte ba tey rek am na ci ay relais yoo xamante ni woo naa leen problème bi ñu am mooy amuñu compte Orange Money ndaxte bi problème bi amee dañu xalaat ban système la ñuy fayee nit ñi boo xamante ni à distance la xalaat nañ nag xeetu euh, transaction yëpp xalaat nañ ko finalement nag ñu nekkoon est-ce que nekkul euh, Orange Money bi mooy gën a jàppandi bu ñu waxee Orange Money bi tamit 53 écoles yi nekk ci département bi presque euh, lii dem ci euh, cinq yi amuñu woon compte Orange Money léegi nag bi ñu demee nag ñu war lañu ubbil compte salaire te compte salaire pour nga am compte salaire il faut nga am compte Orange Money ndax euh, code secret bi ngay valider pour nga retirer sa xaalis bi moom il fallait nga kii ko léegi nag képp koo xamante ni da nga amoon compte Orange Money amuloo problème maanaam yow jot nga sa jot nga sa salaire à distance. loolu tamit problème bi amoon mooy gérant wu euh, gérant wu euh, kii bi Orange yi am na si ñu bëri ñoo xamante ni comprendre ñu euh, compte compte salaire bi. il fallait que ñun ñun ñun superviseurs yi ñu intervenir woo leen expliquer leen naka la ñuy def ba nga dugg ci compte salaire am ba moom mu mën a retirer xaalisam ndaxte compte salaire bi au niveau de Dakar si la ñuy daggee li nga xamante ni moom mooy moom mooy frais bi. ñeneen ñi nga xamante ni nag jotaguñ seen salaire nag ñi ngi seet dis d'ici demain ñu ubbi leen ay compte orange ne bu ko defee ñu viral leen seen seen salaire waaye nag dafa nekk nekk euh, doxte bi moom dafay métti waaye li ñu wax mooy yeneen mois yuy ñëw doortul amati problème bu boobu noonu ndaxte lépp loo xamante ni dañ ko fi doon def ouverture compte yi ak yooyu noonu yëpp li leen gën a jël temps loolu noonu yëpp évacuer nañ ko ci euh, mois yi nii passé kon euh, mois d'avril bii nii incha allah mun na am euh, première semaine bi rek day fekk euh, salaire yi commencé commencé di ko Xeweul gi TV mu ngi lay sant di la gërëm Aïssata lan ngay tëjee waaw Xeweul gi TV tamit ñun tamit ñu koy sant di ko gërëm ndax ndaxte lii initiative bi initiative bu baax la hmm. ndaxte jamono jii moom à chaque fois war nañ mun di xalaat ci moyen de communication yi hmm. ndaxte communication visuelle dafa am solo hmm. tay ji ni mën naa la wo téléphone bala may wax si rajo bi nga may déglu kii ne yo bu nekkee na yow jàkkaarloo naa ak man man sumay wax yow mën nga see jàngatee lu bëree bëri kon dañ leen di ñaanal yàlla rek li ngeen door yàlla na si yàlla teg xam ba mu rek ne xéewal suñu borom bi na sawan bawan bi xéewal TV di leen jaajëfal bu baax baax di jaajëfal tamit ah, ñi nga xamante ni ñoom ñooy yi nga xamante ñoom ñoo ngànk njàngale mi ci biir ah, département bi ndax tamit ah, ñu ngi jàpp ci combat baax 3 bu baax a baax rawatina nag inspecteur Cissé. mbokki téléspectateurs yu xéewal gi TV lii lañ leen indiloon doon leen ko defal ci programme bi di LPT ak euh, branche bi nga xam ne mooy seen troisième branche bi R3 ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf ki leen doon defal émission bi mooy seen mbokk seen xarit Cheikh Gassama.